desandi ba léegi ak secrétaire général bu ligue sénégalaise des droits de l'homme moom nag wax na ne lu jëm ci cérémonie jébbaluk yooyu rek rapport li mu ci jàpp rek mooy mbirum folklore Alassane Seck di ñaawlu sax retard bi ñu accusé jëm ci publication rapport OFNAC yooyee nga xam ne manque de sérieux képp la ko jàppee ñu teelu ko

nañ topp topp leen ba fu mu xam ne parce que alalu réew mi la wala alal boo xam ne alal bu luub bu luubal la gar la loolu lépp war na am suite war na am topp ñu boo xam ne ba ci cëppaandaw ga ñu xam ne kii moo defoon lii mais nag ko bàyyi yu publier ay rapport at mu jot te du mujj fenn loolu moom vraiment ay caaxaan la mi ngi noonu Haj Mansour rapport bu génnee ñëpp dañ koy rafetlu surtout kuréel yi ci mel ni OFNAC wala IGE OFNAC génnee na 2019 2020 2021 mais li jaaxal ñëpp mooy euh, souvent euh, suivi wala ak euh, continu continuer ci saytu yooyu dossier du ci am benn yoon ndax dañuy day firndeel rek ne fam yenn ci ay dossiers yi nga xam ne <laughs> dañu ko teg ak conc mooy dëggal li ni mel. loolu gouvernement bi la ne xam nga OFNAC kuréel la goo xam ni day saytu ba xam li ñu la dénk te muy moomeelu askan wi mhm. ni nga ko doxalee jaadu na wala déet. Mhm. ci marché yi. ci yi ngay jokk-jokkalanteel ci gestion bi ci lépp lu ci tënku bu liggéeyee ba noppi da koy jox njiitu réew mi njiitu réew moomee nag mooy gis ni ñii jalgati nañu mu jox ko beneen organe bi nga xam ne moo yooyoo topp ki ko mu indi ay précision ak ay leeral bu fekkee dafay weddi ci li nag def kon kay kenn lañuy ñuy laaj rek muy njiitu réew mi lu tax lu tax conc bi conc bi ba kañ loolu lañ koy demandé OFNAC def na liggéeyam jaana wàcc na mu fi ne mënoo cee commenté dara amul loo ci mën a parce du daan kenn jonc bi ci tegu la laaj ki ngay teggeeku <laughs> mi ngi noonu sëñ Sall mi ngi noonu rapport yi euh, souvent day am solo lool te dañ koy rafetlu nag ndax produire rapport ba sax am ñuy inculpé te day génn ci ci bi mais souvent suivi du ci am waaw mais xam rapport yi boo xoolee rek déjà la production de rapports rek xaalis la cour de comptes day produire rapport euh, comment dire IG dañu produire rapport IG sax mën na wax ne moom il faut que président bi déclassifier ko pour ñu mën a wax mais cour des comptes ak euh, OFNAC ñoom seen rapport procureur de la république mën na ko saisir léegi le problème qui se pose mooy procureur de la république dafa nekk sous la tutelle bien sûr du ministre de la justice ministre de la justice nekk sous la tutelle du président la république moo tax foofu aussi comme ni commencé di waxee conco bi moom tant que tegguñ ko ci dara dara du sotti te man li ma li ma li ma li ma gën a rafetlu ci rapport yi moo di l'histoire des 94 milliards bi nga xamante ne député gaawoon nañ dem ba tëj ko ba doyen des juges ba àll bon waa chambre d'accusation daal a dem en tout cas dossier bi yoonam ne aussi léegi ba ñuy ñu ngi koy commencé di dëgg sur le champ de 94 milliards. Mm-hmm. et en plus aussi am na ministre yu bari yoo xam ba léegi defuñu seen déclaration de patrimoine mm-hmm. loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñaawlu. Mm-hmm. te imaginel boobu ba léegi président j'ai l'impression que moom amul benn emprise vraiment ci sur son gouvernement comment se fait-il loi bi wax ne dañu war a def seen déclaration de patrimoine boobu ba léegi ñu lànk taxaw carrément ñoom institution yi kon lu ñuy jariñ dañ ciy dépensé xaalis bu dul jeex ñu produit rapport yu jeex te finalement rapport yi heure bu pare ñu jël ko système classé ko fële jariñul dara mhm. kon kon kon je crois que mais vaut ñu ñu bañ a teg tëgg ay institution mi noonu ñu dem ca Sédhiou ca jamono jooje Serigne Saliou Gueye euh, waxoon nañu ne Sédhiou en tout cas ci boo koy xayma ci réew mu Sénégal euh, bokk na ci euh, région bu gën a deltu ginnaaw ci wàllug ndóol wala sax bokk na ci région bu gën a ndóol ci téeméer boo jël juróom-benn fukki yeeg juróom yi toftal juróom-ñaar moo mel ni kon rapport bu mujj bu agence nationale de la statistique ak démographie ANSD moom moo ko xamle ni ki tey nag situation bi gën naa métti te tar lool ci bu ñu xamee ne njëgu dund gi gën naa cher te bëriwaana Euh, ci ay euh, famille yi nga xam ci ni mënatul ñoo lu jëm ci euh, añ reer ak ndékki bokk na ci itam ju fukk wala sax téeméer boo jël juróom yi ñu interrogé foofule ci taux de po ci taux de pauvreté bi nga xam te ni wax nañu ne dellu na ko ginnaaw ci réewum Sénégal ne ñoom ñoo ne gisuñu ko benn yoon ndax la ñuy dund ci wàllum dool métti na dañu ci teewlu correspondance bu Ibrahima jàlloo ca Sédhiou pour Cheikh Tidiane Diédhiou nekk professeur d'histoire et de géographie nekk tam acteur politique de l'opposition xam bu président xam leen ni ndool dafa wàññeeku ci Sénégal wàññeeku bu toll ci juróomi poñ day takk ngembam daal di uti majorité assemblée nationale ak troisième mandat day tàkk ngemb parce que ñu ngi jànkonte ak ay échéance électorale mu war a dem jong ci élection législative war a préparer itam euh, élection présidentielle def naa ne loolu daf ko wax rek pour outil ñi nga xam ne ñoo ko jàppale diggante 2011 ñëw ba 2018 19 dañu ne ndool wàññoo ko noonu ci ay juróomi poñ ak lu ci tegul pour madame sànni Yaama Diédhiou tam ndool mu ngi gën a di farankulaay ci diwaanu Sédhiou ak ay njëg yu seer waral ba am na ñoo xamante ni ñu amandoo añ ak reer. surtout Sédhiou ceeb na mboolem bi yomb fi dal maanaam du suukar du du dara même soble sax cher na dara yomb trop mooy région bu gën a wow ci région Sénégal yëpp. bari na si ay siijuya ñu jàpp ni laata président Macky Sall di joxe ay cash transfert dafa war a ci xeex ndool bi ubbi ay entreprises ak ay usine de transformation ci diwaan yu mel ni Sédhiou Ibrahima Diallo jërëjëf ginnaaw Sédhiou ñu dem ca arrondissement bu Jula Kolon foofee nag askan wa fa yeewoo maire bu futt la ñu def ndax jafe-jafe gu ñuy dund ci ñàkkum yoon euh, diggante yoonuk euh, Kolda euh, Sali Kényé ak frontière Guinée Bissau moom la ñu ne nañ leen ko defaral te mu toll ci ñeent fukk ci ay kilomètres ñu sukkandikoo ci askan woowee fii ak élection yi ñëw kilifa yi buñ ci àddul daañ leen sanctionné ci yooyu rek élection législative jamono jooju nag laata ñuy xaar état ñoom. am na doon fa pexe ngir xool ana yan yoon la ñu mën a jaar ngir mën a rembale euh, yoon yooyu nga xam ne sonn nañu ci lool dañu ci euh, teewlu euh, compte rendu bu Papa Kadiali Badji askan ñetu commune yu nekk ci tali bi jóge Kolda jëm ci Salikégné ci frontière Guinée-Bissau ñoo ngi ñaax nguur gi daa di goudronné seeni yoon boobule. nañu defal suñu yoon bi bu ñu defal suñu armée ñun ñu am suñu jàmm lool la ñuy ñaan président de la république ñun ci Sénégal bi la bokk lenn rek la ñuy ñaan mooy ñu goudronné ñu tali bi. ñu ngi bëgg vraiment ñu defaral ñu tali bi ñu defaral ñu ko goudron parce que sonn nañ jigéen sonn nañ trop. yoon boobule bu ñu duppee bu CEDEAO te mu yàq ko lool ñu bëri ñoo koy jëfandikoo loolu moo tax askan wi di lal ay pexe ngir rambale pax yu bëri. ak jigéen ñi nga xamante ne ñoo ngi fi ak seen i siwo ak seen i góor yi ak seeni i pour lan mun a remballer. Euh, vous avez vu les femmes porter des seaux de cailloux pour vraiment mettre euh, sur la route là. daanaka suñu sukkandikoo ci askan wa bu nguuru Sénégal deful lenn ngir mën a defaraat tali boobu le gannaaw bu ñu leen diggee du benn du ñaar ñoom daañu amal vote sanction. nous l'avons assez accompagné s'il ne nous ne butons pas cette route là avec les échéances à venir on risque de lui tourner le bala nguur gi nag di addu ci mbir mi ni mel askanu jula kolon dinañu wéy di dundee ay jafe-jafe Pape Kadiali Badji jërëjëf ñu dellu siwaat fii ci Ndakaaru wax ci ñaar fukk ak ñaareelu ko édition bu euh, FIARA directeur général bu foire international agriculture ak ressources animales daal dinay euh, yëngatu bu baax a baax ci organisation boobu lekk euh, FIARA te itam di rafetlu détermination yi aussi exposant yi am Pape Abdou Fall di wax ne sax lu toll ci ñeen fukk ci ay structures yu yees daañu leen fekk si ginnaaw atum 2020 bi nemmeekoo nañu leen lu toll ci juróom-ñeent ci ay téeméer exposant ñëwoon nañu waaye ci ñaari junni ci ay exposants euh, ñu teelu ko ministre des finances ministre de l'agriculture ministre de la pêche ministre de l'élevage ministre de l'environnement et de la femme ñu bëgg jafe-jafe yi nga xam ne préoccupation la pour l'Afrique ñu daja ñooñu ñëpp ku nekk ci biir fiara bi di ñëw incha allahu rabbi boo taxawee fële boo seenee fiara di xam ne leneen la kon ay engagement la en passant maa ngi gërëm sant équipe bi nga xam ni ay xale yu am jom ñu gëm seen bopp ministère yooyu ma la wax yëpp ñu daje ci biir FIALA ku nekk dinga am sa benn journée ñu capitaliser lépp ñu xool fan la ñuy mën a teg suñu tànk ba bu ëllëgee bu dégâts di amit ça sera à un taux très réduit ñu noonu mu nekkoon Papa Abdou Fall mbokk yi ñu tàbbi ci seen xalaat.